àdduna bi mat nañu cinq milliards wala six milliards su bëree ba bëri cent quatre vingt wala cent quatre vingt dix cent quatre vingt dix président moom am boo ci génnee gëm yàlla mooy tax la nga war a def nga def ko bu sabab jotee nga sabab ba mu mat sëkk la ca des na nga bàyyi ko yàlla ak lu munti ñëw nga delloo ko yàlla moo tax yonent bi ne jullit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 ndax xar normalement buñ ko rendee dañ ko war a bàyyi ba yàpp bi set parce que dafa bëri matière grasse waaye tabaski ni muy doxee mooy dañuy rendi rek song ko moo tax léeg-léeg problème tension yi jóg ak yeneen ak yi am da ciy bëri kon sama nijaay séeréer yi ak sama mbaam alpulaar yi ñu ngi leen wax ngeen def ndànk ak ñi sant jéem ak sant baaj yi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 mboq mi euh, euh, légumes yi jaabere bi ak yeneen ak yeneen ceeb bi lépp yéen koy bay loolu sedd na suñu xel suñu xol lool lool lool ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax te ni ma leen ko diggee woon bu soobee yàlla bu ñu génnee ci julli tabaski bi lañ ca mën a dabu dinañ ñëw ànd koog yéen parce que ren année zéro ñoo ngi ko lancé bi nawet gi di dugg ñu tuddee ko année zéro ren at bii di ñëw di année première année at bi ci tegu di deuxième année kon su nee ren lañu def lii bu soobee yàlla mbir mi dinañ ko waajalaat bu baax dinañu fexe ba ay tracteur dina ñëw ay samuwaar dina ñëw jiw gi dina mat semence gi dina mat parce que ànd ak li may wax ni yépp amul lenn loo xam ne yëkkati nañ ko jox leen ko yéen a continuer jënd seen jiw def li ngeen def yépp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 noonu lañ koy engagé ci leneen ak leneen ak leneen parce que même contre saison bi dañuy continuer di liggéey waxuma la nag apiculture bi ostréiculture bi ak leneen ak leneen loolu mooy suñu orientation bees yi politique noonu lañ ko defee ci don de sang bi woote ne dem leen joxe deret parce que day sauver nit ngeen génn yéen ñépp banque de sang am 4527 poches bi ñu defee évaluation boo xam ne ci suñuy initiative la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 waaye ndaw ñi surtout la ci bëree ci bëree bëree bëree bëri am nañ suñu cofeel ñun bëgguñu rek nekk ak yéen ci nu ñuy naxante ngeen ba am seen seen seen carte ngeen woteel ñu waaye dañu bëgg ñun ñëpp ñu commencé déjà ak am beneen vision te ñu ñuy doxalee réew lii lépp nag dafa di guléet ci politique ci Sénégal lii lépp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 mooy kañaan rek boo demee ci téere boobu fi muy waxee ci kañaan dafa ne xubbul zawaali ni'mati al muhtad ba fi béyt bi jeexee lam ca wax ci gàttal mooy li nga xam ne sa mbokk jullit li nga xam ne sa mbokk nit yàlla mi ngi koy jox ci wërsëg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 jote bañoo parce que dalaa def waaye danga ko bañ parce que ngay avancé te avancé nag ma bu baax a baax bu gaaw nañu continuer di liggéey ci avancement boobu ñu bëri dañoo xamul léeg sama rapport ak ku benn président lay Wade président Ablaye Wade am na ay bëgg-bëggam am na programme am na projet am na candidat waaye président Abdoulaye dafa amul dara ci kañaam ku mu bokkalul parti sax yéene la lu rafet ndax ba may woo naan ma moytul ñu ngi lay waajal ñu ngay lay defal li mu noon na ko ci bañ a fekk kon nañu raxas suñuy xol te xam ni yàlla rek mooy joxe ma fàttali nag ni projet Pastef du projet religieux donte kenn ku nekk ci ñun diine gi nga nekk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 weesuwul lu dul li ñëpp bokk ñëpp mën cee jot weesuwul lu dul lii ñuy wax corruption mooy randal gi ak yorin bu ñaaw gi ak clientélisme bi mu jóge ci senegal weesuwul lu dul lii ñuy wooye démocratie mooy kenn ku nekk sa yelleef ak sa àq nga mën koo jot waaye weesuwul lu dul ñu libéré suñuy réew ci nooteel bi nga xam ne jamonoy esclavage ba léegi mi ngi fi te dañu fi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 réewum Sénégal réew bu barkeelu waaye ñun ñii di dund ci jamono ji ñoo war a chaque fois ñuy posé wu suñu ay question maam ya def nañ li ñu waroon def mag ñi def nañ li ñu waroon def seeni xeex def nañ ko waaye est-ce que ñun ñii di dund tey au vingt unième siècle est-ce que ñun ñii di dund en deux mille vingt ñoo ngi koy def bis bu ne suñuy posé wu question boobu dinañu am réponse te la li war ci lu ñu war a taxawee dinañ ko taxawee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 dañoo def option ni ñun parti d'opposition lañu radical kon dañuy opposé wu ba fi opposé wu yem ku dul opposé wu bàyyi ñu ñu opposé wu rek ñun loolu mooy suñu choix ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatu